jël ngeen jëf mbokk yi di rafetlu ànd beeg seen télévision Leral TV Leral euh, point net euh, tey nekk seen grand entretien dañuy dalal euh, ki nga xamante ne moo di Adama Kane Diallo nekk président du mouvement Ndar sa kanam en même temps tamit président du conseil communal et vice président du conseil départemental de la ville de Saint-Louis vice président du conseil départemental de la jeunesse. au niveau de Saint-Louis du Sénégal. monsieur Diallo ñu lay nuyu bu baax a merci beaucoup Euh, damay nuyu waa leeral bi ñu dal di ñu defal mhm. entretien mhm. di nuyu seen kilifa di nuyu personnel bi yëpp mhm. euh, di nuyu Sénégal gi ñuy seetaan et au niveau international euh, di nuyu waa Ndar les jeunes di nuyu mbokk yi am di jàmb yi di wax ne rek rafetlu naa bu baax a baax ci invitation bi di rafetlu seen liggéey au niveau international parce que leeral moom nekk na site ak télévision bi nga xam ni euh, gis nañu liggéey bu extraordinaire bu muy def te Sénégal sénégalais yi ñu ngi leen di bàyyi xel. Mm-hmm. je pense que maa ngi leen remercier ci invitation bi. Mm-hmm. monsieur Diallo yaay président mouvement Ndar sa kanam yaa nekk ci euh, bopp mouvement bi en même temps tamit euh, nga nekk fa ci mbirum jeunesse bi d'abord ndax mën nga ñëw ci li nga xamante ni moo di mouvement Ndar sa kanam ak lan moo ko wundu. Euh, mouvement ndar sa kanam li ko indi du dama xëy rek toog taxawal ko non wala dañu xëy rek toog ñu taxawal ko euh, li ko indi mooy dama dem élection législative nekkoon tête de liste si benn parti CPGE euh, ba yàlla defee ma nekk ko xëy na am na ñu nekkoon sax si liste bi mais ñooñu dañu mujj arrêté dañu mujj bàyyi. Euh, ma ni qui ne risque rien n'a rien dinaa dugg ci terrain bi dugg ci commune bi dugg ci département bi xool bu élection yu jotee législative yi ñaata fois lay am. Hmm. Euh, y avait 47 partie politiques ñoo ne woon ci élection législative yi yële passé mooy mujj yi passé ba ma demee ma def campagne complexé wu ma woon ci benn leader ànd ak samay nawle samay xarit samay am di jàmm ak ñi sama philosophie ñu ànd ci di liggéey waxtaan ak nit ñi wax leen. ba nu demee ñu wàññi ñu am cent 802 voix ba nu amee 802 voix tey bu doon élection locale la dinaa am ñaari conseil wala ma am benn conseil ma ne ah lii moom départ la te nit ñoo ñu jàppale ma ñu am ngëm-ngëm si man am conviction si man gëm ma lool ñu ne ma ah aadama doo bàyyi da ngay continuer man leen réfléchir leen ah, si si lan lañu war a mën a def pour les perspectives ba nu xalaatee ñu lalu tëdd të tëju liggéey si la ñu créer mouvement Ndar sa kanam ban ko defee nag ma woote benn woote bu mag a mag a mag a mag a mag benn assemblée général bu mag woo si ñëpp dëggal ko dinañ bis naka tey mouvement Ndar sa kanam taxaw na lenn moo ñu ñor xulowuñu xeexuñu waxuñu ñu ñaaw développement wu commune de Saint-Louis ak développement wu département de Saint-Louis. Mhm. ak li ko wër. Mhm. tey am nañu ay membres dans commune am nañu ay membres dans le am nañu ay membres partout dans le Sénégal même au niveau de la diaspora yaa ngi dégg te yàlla suturaal nañu ba nit ñi ñu ngi ñëw ak doole sortie bu may def les gens nous attendent. Hmm. les jeunes les femmes et cetera et cetera. du bois. Euh, yàlla mi ngi si def sutura mi ngi si def parquet te liggéey rek moo war te ñu ngi si liggéey boobu. Mm-hmm. Bousso Diallo wax nga ko ci biir kàddu donc yaa nekk ci bopp mouvement bi yaa ngi koy doxal euh, donc ñu gis fi mu ne Sénégal am tamit benn recrudescence bi nga xamante moo di immigration clandestine au niveau de Saint-Louis sax gis nañu par exemple euh, am na fa ay victimes yu bëri yi nga xamante ne ndar la ñu dëkk d' abord yow noo gisee li nga xamante mooy retour phénomène boobu noonu fii ci fii ci Sénégal. bon ma ko gisee mooy na fi. mu dellu si waat fi léegi fokk ñu def lël waxtaan waxtaan bi ñi ko war a jiite mooy nguur gi état bi fi nekk ñëpp topp si parce que am na ñu si def jéego bu extraordinaire parce que man ba affaire bi amee man sama wàllu bopp dem naa Pikine seeti mastaw sunu rakk yi génn àdduna demoon sa gaal ba je pense que tey jii war nañu yaatal waxtaan bi parce que gis naa ay structures yu bëri yu créé yu taxaw gis naa directeur euh, général des Sénégal de l'extérieur ñu ngi si def liggéey bu am solo gis naa commune de Saint-Louis ñu ngi si def liggéey gis naa tamit sunu sœur madame Ngone Ndoye mi ngi def liggéey léegi nag état bi lu mu war a def mooy structure jeunesse bi nga xam ni ñoo doon jàppale jeunes yi si côté formation ak si côté euh, liggéey wala employabilité léegi foog ñu def benn évaluation une évaluation envers les structures de jeunesse lu si mel la DER lu si mel la ANPEJ lu si mel euh, structures yi nga xam ne daal état moo ko taxawal fokk tamit ñu def benn évaluation si biir évaluation bu ñu ko defee mu amaat beneen jóg bu bees parce que ndaw yi je pense que am na ñu ma gis ñi nga xam am na ñu liggéey dañu bàyyi seen liggéey dem na ndaw yi li nekk seen xel mooy ñu leen war dem bitim réew foofu lañu war tekkee ñu ñuy gérer le conseil de la jeunesse dañ leen war a conseiller dañ leen war a wax leen ni réussir sa réew sa dëkk c'est possible. léegi nag si biir loolu état bi fan laa koy woowee na si woote benn benn waxtaan bu yaatu képp koo xam mi ngi yëngatu si wàllu immigration clandestin structure bi si yëngatu état woo ko mu joxe xalaat bi su ko defee le ministère des affaires étrangères la direction des sénégal de l'extérieur le secrétaire général Sénégal de l'extérieur gérer gérer lël boobu le président de la nekk sa kaw ñu lëlu si xool lan mooy solution parce que solution yi formation yi baax na mais solution bi gën am solo mooy xale yi bu leen defalee formation xale yi bu leen jàppalee ba nu am xam-xam ba ñu jëm leen insérer mu am suivi. te xale yi tamit ci wàllu boppam parce que ñun enquête bi ñu def en tant que conseil de maa ngi leen di jaale maa ngi leen di jaalewaat. lu moo tax par exemple euh, Ndar bokki dëkk yi nga xamante ni moom la immigration bi gën a touché si Sénégal. waaw euh, je pense que xëy na dafa am ñaari mbir yi ma si wax. parce que gis naa si ay jeunes yi si demoon yi nga xam ni ñii ay mason la ñu woon ñii ay câbleur la ñu woon ah, ñii ay ñii ay ay menuisier la ñu woon léegi ça veut que ay ñii ay carreleur ah, amoon nañu seen métier ça veut que ñoom li tax ñu bëgg dem xëy na Covid bi ñëw na yàq lu bëri dama lay jox benn exemple am na un jeune boo xam ne c'est un moom amoon na jafe-jafe si wàllu liggéeyam moo tax foofu toujours damay wax état liggéey yi nga xam ne ndaw yi ñu ngi koy def. les PME état na jéem a encadrer ñooñu comprendre que ba loolu amul Covid ba mu ñëwee mu yàq seen liggéey si lu bëri amatuñu lu ñu war a am ñu gis possibilité ñi ñoom tukki moo leen arrangé ñu dem tukki génn fa àdduna je pense que léegi xam nga waa DER yi ba fii may waxanteeg yow war nañu def benn réunion technique ak le conseil communal de jeunes war nañ fi ñëw ba bu ñu ñëwee itam daañu waxtaan ak ñoom wax leen stratégie bi ñu doon def baax na mais nañ ko changer changer ko mooy nan. ubbi des antennes au niveau régionaux gën a jege population bi parce que wu tax parce que loolu su amee rek ñun ñu di jéem def suñu rôle sensibiliser les jeunes sensibiliser les parent ah sensibiliser état est comprendre que te di waxtaan ak structures yi structures yi waxtaan ak ñun je pense que bu buñ ko defee immigration clandestine dootul amati si réew yi ba pare itam structures yooyu itam dañuy wax ndaw yi dëkk na leen wax li mën a nekk ak li mënul am ba pare si biir loolu boo financé ndaw balaa nga koy financé defal ko une formation qualifiante. ñu ngi jàpp ne structure seen rôle dafa des daal demee ANPS DR du genre comme. je pense que duma ni des na damay ni seen rôle ñoom seen wàllu bopp am na lu ñu def am na lu ñu def. am lu des mais am na lu des lu bëri li nga xam ne foofu damay wax état. daneen gën a dooleel état daneen gën a renforce ba pare lépp balaa ñu leen renforcer yooyu ñu def benn une évaluation parce que au niveau de Saint-Louis gis naa ADPM mi ngi def liggéey bu extraordinaire hmm. parce que gis naa ay ay ay ay ay ay jeunes chefs d'entreprise yu ñu encadré jàppale gis naa ay entreprise yu waroon daanu ñu ñëw taxaw leen jàppale leen si si Covid bi kon yu mel noonu bu leen doolee ba pare mu am suivi boo xam ne suivi bu am solo la ba pare ñuy wax ndaw yi dëgg ba pare ñu wax ne li mën a nekk ba pare boo defalee ndaw formation nga fexe ba boo ko defee nga insérer que ndaw bi boo ko insérer wu dans les entreprises mu fexe ba créer entreprise boppam nga jàppale ko ci entreprise boppam boobu moo am des ouvertures parce que bu doxee ndaw boobu mën na créer emploi ba pare mën na di gën di fay impôt alal boobu mën na di gën. yéen au niveau du conseil départemental de la jeunesse bu Saint-Louis conseil communal de bu Saint-Louis est-ce que def nga ci ay jéego. ah bu baax a baax. notre hmm. rôle le conseil de la jeunesse conseil communal c'est conseiller encadrer et orienter. ñu dañuy jël ndaw yi conseiller leen encadrer leen ba pare orienter leen c'est notre rôle te yàlla mi ngi ñu ñuy defal sutura ba le conseil communal de la jeunesse bii ma nekk yàlla defal nañu ba ndawu ndar kenn merewuñu si du ma taxawu nañu ndawu ndar yépp mais le maximum def nañ ko parce que lay tey loolu moo waral séminaire bi ma nekkoon démb à à à résidence Mamour maa ngi leen defal publicité bi mais après ñu ñëw fay leeral Euh, ñaari conseil communaux yu nekk Sénégal lañu tànn conseil communal de la jeunesse bu Saint-Louis ak conseil communal bu Kébémer tey si ngoon samedi le 28 war nañu jox benn lijaasa le conseil communal de la jeunesse ndax taxawaay bi nu am si Covid bi muy waa Covid solution seen ay partenaires ànd ak ñun ñu tànnoon 24 initiateurs si wàllu Covid bi conseil communal de la jeunesse bu Ndar bokk. si ñooñu si 24 yooyu kooku alhamdulilah rabbil alamin léegi tey nañ ñuy jox suñu benn raaya euh, raaya boobu dama koy jagleel jeunesse bi yëpp. di koy jagleel kilifa yëpp li koy jagleel suñu partenaire yëpp alhamdulilah rabbil alamin tey si ngoon la à partir de de quinze heures mhm. euh, musée am na solo mhm. monsieur Diallo tamit euh, ñu gis li nga xamante ni moom moo di par exemple euh, élection locale yi mi ngi mi ngi ñëw te ku ne Saint-Louis par exemple ni kii di Mansour Faye moo nekk ci bopp maire bi d' abord bu daa ñëw ci élection locale yooyu noo gisee gestion Mansour Faye waaw ça veut dire que man personne la bi nga xam dama responsable euh, bi nga xam dafa am suma ay nawle suma ay militant suma ay sympathisant yu ànd ak man euh, je pense que man li ma gëm si élection li ma gëm ci élection locale yi mooy man balaa may def bilan bilan gestion maire bi fi nekk muy Mouhamadou Mansour fay fokk bilan bi jeex su jeexee ñun ko le mouvement Ndeer sa Kanam daañu taxaw def ni bilan bi négatif la wala bilan bi positif la. mais boo xoolee léegi élection yi ñëw nag léegi léegi élection yi ñëw donc war nga mën def bilan à mi-parcours. daal ci waaw que xam nga euh, bilan bi may def au niveau de la commune de Saint-Louis euh, du ma ni def fa dara parce que su ma ko waxee tamit du ma góor euh, am na lu mu def si dëkk bi parce que boo demee Saint-Louis gis nañ am na ay chantiers parce que toujours damay wax nii déedéet ñu ni maire bi en tant que maire en tant que collectivité locale def fa dara. mais l'État si nous l'État son les collectivités locales sont les mairies sont les conseils départementaux mais li am solo mooy boo bokkee ci état fexeel bay tibb di ñëw je pense gis nañu ndar euh, su may wax dëgg parce que damay wax en tant que doomu ndar euh, parce que tamit ci télévision laa nekk ci site leeral laa nekk leeral foog ma leeral euh, parce que yàlla pare na démb li war a am ëllëg mais nit bu defee lu baax dinaa ko wax am na ay chantier yu am am na yoo xam ni des dañuy ñaan yàlla mu gën a yokk loxoom parce que bëgg naa trop ni ëllëg bu nekkatul meeru Ndar ay sëtam wala ay doom romb ñu ni ah sa papa moo fi def lii way la bi nga xam ni du fay ba ilaa yawmi diin je pense que loolu laa koy souhaité mu am ndam si liggéey liggéeyu liggéeyu miir yi tax bëgg nekk maire wala keneen tax bëgg nekk maire yàlla lu muy def pare na du da ngay attaquer nit pour bëgg nekk maire ma juste un Saint-Louisien je m'en bu maire bi defee lu baax dañ koy encourager bu deful la ka war def mën nañ ko wax anam ba nga ko war a waxee. mu mhm. dégguñu pour mu def pour avancement wu ndar parce que ñun demuñu Dakar demuñu bitim réew ñu ngi ndar ndar bu doxee suñu ay mbir dox bu ndar doxul suñu dara dox comme moom na yàlla def mu nekk maire dëkk bi dama koy ñaanal moom yàlla moo am. donc donc yow moo de yow en fait au niveau par exemple si prochaine échéance yi yow am nga yéene samp sa ndënd ngir jàkkaar moom. waaw ça veut que xam nga dama am mouvement ndar sa kanam bokk ay nawle. bokk ak ay am di jàmb gënu ma leen gënuñu ma ma ñu jiital ma l'essentiel ñu ngi massifier dans la commune le département pour gën yaatal ñu nekk diaspora ñu ngi adhéré aussi mouvement bi ñi bokk nekk des Saint-Louisiens nekk dans les régions ah ñu ngi adhéré aussi mouvement bi ñu ngi liggéey bu newee nag ba war taxaw naan def ñun benn évaluation xool ndax ñun dañuy dem ci élection yi wala ñu xool ndax dañuy créer une très grande coalition wala ñu xool ni ban taxawaay nañ ci war a mën a am l'essentiel lim la si mën a wax ci gàttal. Hmm. mooy élection locale yi di ñëw mouvement Ndar sa kanam dina ci takk rëpp pour benn intre intérêt commune ak intérêt département de Sénégal. ngir jàkkaarloo ki nga xamante ni moo di Mansour Faye. waaw ça veut dire que mënuma wax xam nga lan laa mën a wax mooy ñun dañu am un ma am ay cadres yu si nekk am ay étudiants yu si nekk am ay élèves am ay femmes de développement ay jeunes acteur de développement chaque instant ñu ngi waxtaan di réunion l'essentiel bu ñu demee ba jàpp dat xam nga kenn xamagul élection locale yi kan la kenn mënu la ko mm-hmm, mm-hmm. jàpp nañ date ni mars la mais gëm naa ne du nekk mars 2021 c'est impossible mënul nekk. Mm-hmm. techniquement c'est impossible peut-être mën na nekk ay juin 2021 wala peut-être gars yi couplé ko ak élection législative yi. ah comprendre que euh, bu loolu bu loolu bu loolu bu loolu amee mun ne élection yi tel jour la tel tel tel mois la ñu xam ko ñun le mouvement Dara Sa Kanam dina prononcé wu ban yoon na war a dem te yoon bi ñuy jëm mooy int mooy intérêt ndar mooy intérêt département mooy intérêt population bi. Mhm. monsieur Diallo si lan par exemple ngeen nar a ba euh, accentuer seen programme bi nga xamante ni jàpp ngeen ni euh, bu leen da seen usine yi dafay confiance di ngeen ko di ngeen ko appliquer. xam naa da nga ma ko yéene damay wax amiin quoi. bon mhm. l' essentiel euh, Saint-Louis dëkk bu ndaw la. Saint-Louis neex na defar Saint-Louis dëkk la dëkk la bi nga xam ni dëkk tourisme la Saint-Louis dëkku pêche la. Saint-Louis dëkkum agriculture ba pare population bi population jeune la te population bi ñaar ñi lañu soxla mooy la formation ay emploi je pense que loolu bu yàlla defee ñu am tey tourisme bi dañuy gën a gën a gën a jox doole tourisme bi dañuy gën a jox popp rawatina pêche bi je pense que tey xalaat bi ma am ci pêcheurs yi parce que toujours am benn métier baax la may wóoru comprendre que nit boo nekkee un jeune pêcheur da ngay am beneen métier ci wàllu pisciculture par exemple wala nga am beneen métier si wàllu agriculture bu luy doxul rek nga jàll fene l'essentiel ñun bu yàlla defee ñu bokk sa équipe ba parce que damay wax toujours parce que tey même bu ñuy dem au niveau de la municipale ou bien au niveau du conseil départemental c'est la coalition c'est nous ah proposition bi ñuy def tey am na benn groupe bi nga xam ni maa ngi siy remercier le mouvement de Sakam des cadres ñu ngi siy liggéey ñu koy woowee groupe scientifique bi nga xam ni bu yàlla defee ñu dem ba tënkal ñu li ñu war a xalaat si dëkk bi mais sama xalaat bi mu leen jox ak ay experts moo doon njëkk xalaat si tourisme parce que dama doon waxtaan nag un un un un hôtelier mu ne aadama hôtel bi hôtel li mu mën a jël si ay nit benn doomu benn entreprise mënu ko jël. il m'a mu ne ñun sax ñu ñuy jël muy personnel bi ñu si ëpp amuñu qualification. kon ça veut dire que y une école autorité bu ñuy mettre en boo xam ne ñu ñoom ñu ngi koy metre en place à Saint-Louis tey bu yàlla defee ba dox dañuy liggéey ak ñoom nekk ay partenaires proposition tey bokkaale suñu programme te proposition boobu bu yàlla defee ñu nangul ñu ko par exemple ñun daanu signer benn convention ak école autorité boobu jox leen ay xale yi nga xam dañuy jàng si si si si si école bu lu génnee c'est sûr que xale yooyu dañuy liggéey parce que nee na ma à 98 pour cent ku nu jël formé la dañ lay jël dugal la si hôtel yi ngay liggéey je pense que moo tax tourisme bi daa ngi gën a yaatal gën ko defar euh, ànd si coalition bi nu war a àndal fa nu war a bokk ak ñu nu war a ànd pour benn intérêt pour euh, commune de Saint-Louis pour département de Saint-Louis l' essentiel mënuma si sore bu baax a baax a baax parce que am na benn groupe bi nga xam ne am nañu confiance si ñoom ñu ngi siy liggéey bu demee ba si pare si incha allah daañu ko woon population commune bi population département bi. Mm-hmm. woon que si ñëpp tey bu nu amee koo xam ñoo war a nekk ay partenaires si biir élection yi di ñëw daañu ko proposé tamit suñu programme te suñu ndaw yi daañu si gis seen bopp bu baax a baax parce que déjà man am naa si expérience am naa si ay relation parce que yàlla suturaal na ma je suis le président du conseil communal te conseil bon bilan pour les jeunes de la commune de Saint-Louis. Mm-hmm. Mm-hmm. monsieur balaa ñuy tëj rek président wax ci li nga xamante ne euh, mbirum dëkk bi ak tamit mbirum politique nationale d'abord ñu gis li nga xamante ne nouveau attelage gouvernemental bi ak tamit Idrissa Seck ñëw gi ñëw gi yow lu ma gis-gis xam nga ñaari gis-gis laa si am xam nga dafa am ñaari mbir benn mbir mii Idriss Seck c'est un Sénégalais c'est un Sénégalais euh, je pense que maa ngi fàttali ñun ba ñu gënee nekk xale yi euh, dañu daan gis Ablaye Wade di dugg si nguur di génn di dugg si nguur di génn di dugg si nguur di génn fekkee ni Idrissa Seck lenn li tax mu dugg benn intérêt la mooy intérêt réew mi j'applaudis à mes deux mains bu fekkee ni dafa dugg ngir ay intérêt personnel am je pas d'accord comprendre nga bu fekkee daf si dugg pour intérêt population bi jafe-jafe yu ñu nekk mu bokk sa ñu koy joxe xalaat yu baax yi ñu koy jëfe pour benn intérêt mooy intérêt réew mi j'applaudis bu dee leneen moo si nekk lu dul loolu je suis pas d'accord mais mënuma la wax ndax loolu moo si nekk li ma si mën a am mooy njort bu rafet parce je pense que dootul xale mag la responsable kilifa gi tàllal na ko loxo mu bàyyi lépp ànd ak moom pour benn intérêt mooy intérêt réew mi maa ngi koy encouragé parce que lu ñu ñor na réew mi dox bu réew mi doxee ñu ñëpp suñu affaire dox bu réew mi doxul suñu benn affaire du dox mm. dañuy ñaan yàlla tamit ñi fi nekk jiite yàlla may leen ndam ñu doxal yàlla miy sotti sutura jox leen sutura projet yu dugg si ndaw yi am liggéey entreprise yu dox entreprise di jël ndaw yi ñuy liggéey je pense que man loolu laay yéene euh, loolu laay yéene le président de la République Macky Sall yéene bu bees bi fi nekk yéene ko structure yi fi nekk si réew yëpp Euh, dama lay ñaan yàlla ñu am ndam parce que bu amee ndaw hmm. bu amee ndam rek Sénégal moo si naat Sénégal bu naatee rek képp ku fi nekk Sénégal rek mbiram mën a dox si hmm. loolu pour nga mën a gën a mën a jàpp dernière question rek monsieur euh, Diallo par exemple démb gis nañu barki dem assemblée nationale di Aïda Mbodj di sàkku ci li nga xam ne moom moo di DER ñu publier liste bénéficiaires yow en tant que jeune euh, président mouvement je veux dire de la jeunesse est jàpp nga ni yow loolu wareef la ñu publier képp ku jot ci financement yi daal je suis d'accord xam nga wu tax je d'accord xam nga man bu ma nekkoon euh, délégué de la DER ñu laaj ma ko dama siy sawar bu bëggee lu leer dama siy sawar parce que alal bi bi leen jox muy muy muy muy muy financement bi sunu alal la ak alalu bitim réew bitim réew bu ñu lebee la ñun ñoo koy fay. <laughs> mais Aïda Mbodj elle est am na droit demande lool tam am naa droit tamit je demande tamit monsieur saar na publier jeunes yu nu financé ñëpp rawatina les jeunes de de Saint-Louis pour ñun sax ñu mën def le suivi pour jeunes yi fayul ñu xam leen. Ah, yaa ngi dégg ñu dem conseil leen ñu leen dem leen fay parce que boo leen fayee daanu am ñeneen ñu nu ñu ñu ñu ñu ñu war a jàppale boo leen fayul ah du baax ci keneen euh, je pense que du lu bon lu baax la c'est la démocratie. àdduna loolu moo koy doxal mooy euh, délai euh, euh, di informer délai ngay évaluer te loolu dafa bokk si évaluation loolu mooy nekk loolu ku koy def tamit c'est un grand monsieur. loolu ku koy def tamit c'est un c'est un c'est un gentleman te loolu wax dëgg yàlla maa ngi rafet rafetlu. madame euh, la députée Aïda Mbodj euh, en tant que euh, président conseil de la jeunesse dara ne aussi lu baax la naka def bu ko defee dina daa ñu xam ne lañ ko dénk liggéey dong moo ko tax a jóg te deer boobu tamit du ma ni defuñu dara quand ñu ngi def parce que man à Saint-Louis gis naa ay jeune yu ñu financé yi nga xam ni bokkuñu ci parti au pouvoir ah c'est la réalité gis naa des jeunes tamit yu nu financé yi nga xam ne tamit. ay jeunes yuy góorgóorlu lu ñu woon ah bokkuñu sax ci opposition bokkuñu sax ci pouvoir parce que mm. c'est c'est c'est normal euh, ñun tamit en tant que ndaw euh, daanu gën a euh, yaatal liggéeyu DER parce que dañu bëgg jeunes yi bénéficier parce que suñu alal la ñun suñu alal la. Mm. suñu alal la fokk tamit DER def lépp loo xam ne li mu war a def mu tekk ci yoon mu jaar yoon. Mm. ñun li nu li nu li nu li ñëw rek mooy ñun conseil conseil communal de la jeunesse DER daf ñëw. day ñëw saint bi bu ñëwee tamit daanu jéem a convaincre euh, le délégué le délégué régional délégué général mm-hmm. dalaa DER pour au moins ndawu ndar yi soxla nañu des financement mm-hmm. na leen jàppale former leen jàppale leen mu am suivi pour xale yooyu mën a ëllëg créer. Mm-hmm. Euh, d' autres emplois. parce que xale yooyu bu leen jàppale ëllëg dañuy fay impôt fii. monsieur Diallo sa kàddu gu mujj rek ci entretien général. di leen di gërëm waa leeral di gërëm équipe bu leeral yëpp seen teeru bi ngeen ma fii ba pare jox ma añ. dëgg yàlla leeral moom defe naa ni euh, ñu ngi leeral ñu ngi jox info bi ñu xam ay teranga lañu parce que 14 heures laa fi dugg si wax dëgg yàlla joxoon ma añ bu suur euh, naan sama ataaya euh, déjà day fay wane ni rek yéen ay ay ay sénégalais ngeen yéen ay jàmbaar ngeen di gërëm ñëpp di gërëm tu di gërëm tamit waa Saint-Louis parce que damay wax ni man Saint-Louis xaw ma lan laa leen defal Saint-Louis mënuma dox un mètre. te ni du taxaw encouragé ma muy mag di ndaw di góor di jigéen eh, moo tax man toujours damay am jom damay am courage damay gëm sama bopp ni man saint yi cër bi ma jox yàlla na bu ñu gis leneen li nga xam dañ ma koy jëppee te incha allah yoon boobu ñu may yaree ak gëm-gëm boobu ak patience boobu dinaa si nekk naa jël lépp tamit tekk si loxo suñu borom lu am rek ñoo xam ne du man yàlla la di leen di gërëm bu baax a baax si invitation bi merci beaucoup